ah tubaab dem na Paris. Oh. jëlal ma monsieur le maire. wuy ma mais monsieur le eh, jëlal caravane bi. wuy ma foofu foofu. bien nag. Ah. man ah. normalement bu ñëwee dañ ma war a gàcce. dëgg la café oh, gi monsieur le maire. monsieur sa veine yi nga takk nii. monsieur le ah, le maire beer yi nga takk nii damay wóor ne. te tey dama fàtte su ma ko jaayoon laal sama anti chat bi. <laughs> yaas tey sama cumukaayu cat bi laa fàttee laal yaas ma ko jaayoon mën naa ci am xaaral a benn dix sur quinze damaa war a cosaan ba bala na sax fii cat du la fi toog yëkkatil kii bi monsieur le maire yëkkatil yëkkatil montre bi yëkkatil bu ko tax nag maa aywa xam nga li Abba doon wax ko wax ah <laughs> foofu waaw ko ko léttu léttu léttu léttu ba mu nice te monsieur waxu ko sax léttu yi rafet na. mu ne ko laaj. mu ñëw di ko degal añ bi rek ne ko nii ni jaay añ baa ngi mais boo gisee bopp bopp beeg bool beeg ànd. mais comme que monsieur tamit yor na benn montre bu rafet rafet. te madame waxu ko ne montre bi rafet na mu ne ko teg ko nii. na montre bi feeñ. waaye. ma mbay tamit xaaral rek ma ñëw def ko noonu. da ko ne xoolal. ne bàyyil wax defal remédier tiit te nga bàyyi li ngay def. pour ma wane waale sama montre bi pour. ayca mu ngoog ah. monsieur le maire bu Guédiawaye l'honorable député ñu koy dalal jàmm nag man nag laal naa mbir mi de man xam nga man moom dama dama kii. naa boo bëggee nga ñëw andiwaat ko de boo ma si jàppalee ma ñëw. fu nekk ngay bës nag. ah mi ngi nii ñëwaat. del bàyyi foo jot rek bës. ah. foogoon naa ne sax yow liñ la jàngal mokk na. <laughs> <laughs> yow de xam nga ne man damaa terrible. boo xasee ba mu rang rek. ah boo xasee ba mu rang noonu rek yow ba bàyyi la naraan yi jub. naraan yi jub. ah. alaaji man man ah, fàtte naa ko. ba nga ba nga yor big ba professeur ak lan nu mu tudd l'honorable député nu mu tudd. kii waay ay waay paa bi mu sonaloon bi rek député avocat bi. avocat bi mu tudd. maître Djibril War Djibril War non balaa tey moom il faut nga defan Djibril War après ayca may nuyu bu baax waa waa këri suuf sa kanam dañu def benn initiative bu am solo comme ni ñu koy defee ci quartier yëpp këri suuf sa kanam ak tamxarit bi ñu jënd ay nagaax yooyu daal di koy séddale ci ci quartier bi lu am solo la ak bon volonté yi Pape Fall golf la dëkkan ah. kooku nag euh, sama jarbaat la moom ak euh, soxnaam Ulay Fall damay jaay dédicace yëgoo loolu bàyyi li nga wax Pape Fall mooy souhaiter jabaram joyeux anniversaire Oulay Fall donc happy birthday Masady da doon da ay nag tamit démb. mais wuy mais mais. ñu yegg ci kaw tribune bi. monsieur ah. mais doo leen woo bugaan mu dugg man boo fi ba ngeen may invité ba dee gisuma ko dégguma ko. dëgg dëgg. Bougane wuyul ki lay woo ki lay woo war na laa woo wuyul ki lay woo ak happy birthday Ulay Fall sama sama doom ji sama jarbaat bi ay ta ñu yëg ci kaw turbine bi mhm. tey ñan ñoo yëg ci kaw turbine bi non tey monsieur le maire rek moo yëg ci kaw turbine bi en attendant ñu xool fu réew mi toll yéen a kaay groupe des fii réew mi toll moo di l' accident yu sakkan yi ku si nekk mi ngi jéem a expliquer lan moo ko waral ku si nekk mi ngi jéem wax naan lii moo sookeel accident bi lii moo tax waaye yéen bi nee na jërul accident bi ñu gis démb nii ca Ngën Saar mii surcharge la en excès de vitesse lii rek moo yóbbu ñaar fukki doomu aadama ak juróom ñu faatu si anam gu doy waar juróom fukk jëlee ci ay gaañu gaañu cinquante blessés quarante neuf yi nga xam ne nii daanaka ñu ngi nekk si diggante du ndax dee dans un état très grave maa ci yokk très bi nag dans un état grave rek la ñu bind. après un premier bilan ma euh, hyperbole la di exagération <laughs> premier bilan bi nag dañu waxoon ne seize ñoo ca faatu. ñu ne déet waaye ñu ànd ci ñaar fukk ak ñett nekk njabootu sëtuma bu so déggul lool <laughs> ñu ne déet waaye bu am ñaar yu nga xam ne yokk nañ ko ca donc bilaa bi lii bu ñu waxee vingt quatre yénn kaay bi na leen juum ngeen de vingt cinq morts la te nag boo seetee ci carte grise yi mooy dëggal lii yénn kaay bi wax nee na ci carte grise yi boo ko xoolee soixante passager la am droit yóbbu waaye soixante seize la yëpp donc ñaata yokk na ci seize 16 yokku nañu si. yeggali 16 yooyu xanaa moom surface bi nu mu demee. xanaa kii lañ toog dañ doon tegloo si. uufante uufante bi ak teg ban. ak teg ban suuf toog ci kaw ak uufante. Mm-hmm. loolu moo yóbbu cinq doomu aadama yi uufante te nag ñiy faatu 13 victimes yi identifié nañu leen. 306 ci ay poche poche de sang daanaka maye nañ ko fu mu nekk nii askan wi ñu ngi may deret xam naa l' accident yi moom buñ ko toppee moom dégg askan wi ci boppam ñooy animé parce que comme te askan wi bàyyiwuñu. lii de di accident yi bu fekkee saa bu ñu waxee accident rek gaa ñu dem centre de perfusion mais déedéet animé la ñuy def ndax jéem a sowe waaye nit ñi sowe ñu seen bopp ndimbal na ca fekk loxol boroom dinaa ci ñëwaat. Macky de. yéen kaay bi daal di dikk nee na nag laaj bi mooy accident bu mujj bi sa cyclo dañ fi jëloon ay mesures teg ñu ne dañu koy appliquer bu fekkoon loolu appliquer nañ ko kon accident yi dina wàññeeku accident moo mënta ñàkk ci tali bi. xëj mais nee na bu booba accident di dina wàññeeku Bougane Gueye Dany mom jiital gëm sa bop mais dafa melni on a comme l'impression que rien n'est fait pour arrêter ce carnage sur nos routes dafa mel danaka daanaka defuñu dara. nguur gi bu jëlee mesure appliqué wul. ngir gi bu jëlee mesure daanaka appliqué wala bu koy appliquer sanctionné wul. ndax bu fekkoon nak sanctionné ni wax fa dëgg ne yàlla bus bi war a yeb 60 yeb 76 du romb ñi nga xam ne ñoo nekk ci tali bi te assuré sécurité bi. te duñ ko jàpp parfois nga dem fa ñuy defee visite technique gis oto yoo xam ne dañuy xanta xanta mel ni sama bos te dañuy jàll de c'est grave dañuy jàll de président Macky Sall nag def na na woon woote daal prudence moom moom accident bu amatee da ngeen di def comme d'habitude rek au lieu ngeen di def nii di wax di jàkkaarloo caméra yi da leen di sonal parce que day amaat da nga naan comme d'habitude def ko message rek si vocal partagé comme d'habitude moom moom moo war a prudent kan mom ndax la président na nee na deful troisième mandat. moom moom. Eh, fu mu nekk ah, loo xam te xamuñu ko. loo doon tere nit ñi bok dé way bi yon amul batay mom ku bok wa mom ay wa <laughs> ñu ne ngeen saar. donc ngeen saar la. soo fee sa diwaanu euh, Louga moom bi la tey rek ñaar fukk ak ñoo sa faatu juroom fuk jël ci ay gañu gañu kenn ci rescapé da na expliquer na nga xamne mo soké l'accident bi Antoine Félix diom dal di dik le cumul des morts et des blessés dépasse de loin.

kon de mu ñëw Thiès. abi de dese rek. kon kan Stéphane naan. nga <laughs> <laughs> ne le président Macky Sall mooy Stéphane. fexeel ba bu ñu seet. bi nga xam ay xale yu jigéen. après naa la ko expliqué Gana la woon Gana. looy présenté généraux yi rang bi nii ba mu yegg ci général Stéphane Kanak. waaw. wala <laughs> El Hadj ni mu koy ni mu koy annoncé. chef d'état major général de Nangam. oui le général Stéphane Kanak. tur bi moo xaw a doy waar daal moo léeg-léeg ñag yi seen tur yi ak olof bi hmm. day xaw a <laughs> Macky Sall gëstu ne nii gaayam yi bu mu ñu seet si de <laughs> non kooku bu ñëw Sénégal ñu war koo tagg noo koy taggee non non non non Stéphane après ma bind après ma bindal loolu kii daal moom war na moom comme que moom li mu wax gars yi dañu ko appliqué na toog mais moom sax deux jours mu dem mu dem mu dem tàggee <laughs> te ñëw moom laa gën a yërëm ci ministre yi. Sud Quotidien daal di dikk ci l'accident boobee diggante Saint-Louis Louga retour des vieux démons daanaka nag la woon rek moo amaat ndax la woon bu fekkee moo fi nekk ba léegi kon mënul def lu dul li nga xam ne andiwaat li fi li fi nekkoon 24 morts la wax ñoo xam ne ñoo ñàkk seen bakken 22 yi nag ci saasi la ñu faatu. lu ñu jàpp président Lamine nee na conducteur bi ak usager yi daanaka euh, ñoom ñoo di njaag ndax bu dee surcharge ñoom la euh, dawalkat bu fekkee respecté ñu mesure également ñoom la. état lan mooy njëriñam Mame Mbaye. Euh, mesures yi nga application mesures yi. waaw xool ndax ñu ngi koy. wax ne moom la ñu jëloon ci ay mesures ñaar fukk ak ñett. Mhm. bokk na ci wàllum surcharge. bokk na ci pono yi nga xam ne dafa. occasion yi waaw kii dawalu guddi bi. ak dawalu guddi ñett yëpp dafa dal oto bi dañ ne pono bi moo toj. du benn heure biñ ne moom la ñu accidenté sept heures sept heures et ban heure la jóge Podor diggante Podor ak Ngën Saar daanaka dina xaw a def. Mhm. à peu ay deux cent kilomètres. léegi calculer deux cent kilomètres ñaata heure oto yi nii rek rek rek nañ ko xaw a daw lu tolloo plus de deux heures de temps kon oto oto bii moom ñaata heure la ko war a daw. Hmm. lu jege quatre léegi defal benn trois def sept xool ñaata heure kon koo guddi guddi la fa jóge kon guddi bi ñëwaat na surcharge bi doo ko ñëw ki nga xam ne moom lañ dénk wàllum surcharge bi ci boppam ci mim réew njiital sécurité yi ci boppam di Antoine Diome moo wax léegi ne oto yi oto bi. lu tolloo fukk ak juróom-benn ci ay doomu aadama. toftalu nañu ca la nga xam ne moom la oto bi waroon a yem. déggoo ma de dama ne ñaar fukk ak ñett yow yaa fi énuméré yii rek de boo génne woon ñaar fukk ak ñett yi boo demee ñaar fukk ngi ci oto bi accidenté. <laughs> dégg nga loolu. en tout cas ñett daal na ko. ñett yëpp daal na ko. borom bi daal mooy reye. Mhm. waaye am na noo xamante ni boo ne ko ni dee ñu ne la yow da xaru da ngay dem safara lu tax waxuñ ne. autorail bi bi mi ñew ni dama ne bëreet ñew taxaw parce que dama don xaru mu mbeuk ba mm-hmm. ñu ne non yalla fi la ko dogalo pourquoi ñi nga xamne dañuy pendre sen bop buñ leen fa fekke duñ wax ni ñi non yalla mo dogalon ne ndeysaan dañ dañ dafa xaru mm-hmm. dafa am xaru ak ray sa bop mais leer na la ne li ni buñ ko defé li am ca te yow ya yor walum contrôle bi nga bay mu jall presque 200 km kilomètres Mamadou Fofana amul muy gudi di bëccëg muy muy taw muy naaj même muy taw gendarme yi dañuy taxaw ci kaw tali bi sol seen baas yooyu wala waaw bu loolu weesoo nag tali bi doog a dikk nag. li nga bañ ñu jox la oto si ma wax na ko léegi ne oto bii ñu ma jox nii ba neexul mais oto bii wóorul baaxul. mais kii euh, directeur. Hmm. dëkk bi ni muy doxee xam nga situation da bañ fukk nit ñëw jël juróom-benn junni. Hmm. <laughs> tey nga bañ ne oto bii nii kat duma ko dawal baaxul nit ñëw jël oto bu gën a bon boobu. Hmm. mais loolu nag autorité ci boppam. ñoom ñoo war a wane euh, ngeen baal ma ci répétition bi seenu autorité. Mm-hmm. karam ba bàtt voilà. dëgg la mais yow yow sa Antoine Kay mënoon euh, moom sax heureusement qu'il a été fidèle ci ci ni mu defee compte rendu bi. Mm. mais bu doon sax moom peut-être tappalekat la moom Antoine. Mm. du du wax loolu. Mm. parce que bu ko waxee moom moomu ci boppam am na ci part de responsabilité. parce que moom lañ dénk kaaraange gi. moom ci boppam moom moo toog wax ne kaaraange